kii li mu laaj nee dafa am moom li muy njaaloo dafa bari nee na daal fàttalikuwul bis bu mu njaalowul lu bon yomb na ko lool waaye ñu ngi koy defalit yomb na nu lool waaw yomb na ko lool waaye ñi koy defalit yomb nu lool kon moom ci daayira yomb la bokk léegi nag dem na ba tiit gis nga baaba naa la wax tey benn affaire ñaar moytu ko sa dund njaalo riba day gàllankoor dund entreprise boo mën a ubbi ci àdduna wala liggéey boo yor yow baaba muy dox nga dugal moy di njaalo wala nga di ca dugal lu alal ju lewul yàgg yàgg ci suuf nga jëm du sama wax nag yow mii di ko seetaan ti yor sa societe ba sa entreprise yaa xam yaa nga ca nag dana am ku la oo téléphone ne la dégg Iran wax te bis bu ne nga njaaloog man nga ne ko day sóob nee ko yonent bi day sóob dama lay nettali waxu Muhammad bul ko wax Iran Muhammad moo ne az zina tudhibu lbaha bokk na ci liy dindi personnalité nit ak dignité mooy njaalo xoolal baaba xale bu jigéen boo xam ñu ëmbal ko ak ni mu amee woon pouvoir ci kanam nit ñi ñu ne lekk yi dañ ko ëmbal xoolal sa gis-gis bu njëkk ak bi ngay gis biñ ko ëmbalee du benn sa gis-gis bu mujj mooy doye dina kon personnalité ba rës na moo tax yonent bi ni di dindi dignité ak zina تذهب البهاء وتنقص رزقه day wàññi wërsëg bu dee entreprise da ngay gën di daanu di am ay problème di am ay jafe-jafe moo koy def wa taxsir al umra day gàttal fan